ci waxtu jot ba tegal juróom ci ay minutes ñu ngi fii ci marché bu mag bu Grand Yoff fii nag li fi gën a ràññeeku bokk na ci njaay ak jënd ak waxaale bu métti ci diggante client beeg commerçant bi lépp nag ci waajtaayu feetu fin d'année yi waaye waajtaayu décembre bi lee wute na lool ak yeneen décembre yi ñu weesu lilee di ay kàddu yu Bey di ab jaaykatu prêt à porter ñu fekk ko mu toog ci buntu place pour l'instant de clients yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk quoi. ndax euh, lu waral lool sax mooy euh, kiw ndox bi fi génn ni mooy les eaux usées bi moo tax quoi ñu si bëri ñëwaguñu comme ni ni mu daan def place bi di fees dell ay nit nit ñuy jaa jaabante ak yooyu ñuy mën di gën a indi bagage yu gën a bëri tamit. Xaadim Njaay moom tamit di ab commerçant jaaykat bile mu ngi xamle ni Njaay maa ngi dox. lol tayit client ya ngi ñew bu baax donte way dekk bi metti na lol wa sante yalla bu baax wa fête bi mom ma sha allah ah. ma sha allah wa ñi ngi sante bu baax ñi ngi sante bu baax kay. wa xalé jigeen ñi ñu ñew xana kay ñu ñuy xayma moy ci li nga xam ci ci walu askan bi la ak ci wàllum état bi dañoo bëgg ñu jàppale ñu bu baax ñun kat yi ñu jàppale ñu baax jema xol ñu ñuy def parce que ñun amuñu lu dul suñu dekk suñu dekk rek lañ am fi Sénégal ñun fi rek lañ am. waaw comme ba ñu gisee liggéeykat yi dañ neen war a jàppaleel macha allah. non bagage yi man moom xaw naa see yàgg yàgguma si parce que am na xam-xam bu ma si xam tuuti quoi waaw bu njëkk nag bagage yi yomboon na da nga daan gis lu rafet nga jënd ko du seer nga xam ne ni nga ko mën a jaayee lu baax mais léegi da ngay gis lu rafet dafa seer parce que la moo waral muy seer gars yi di voyage di andi bagage yi nii gars yi di voyage di andi bagage yi dañ naan port bi dafa metti dañ naan fu ñu koy yebee buñ ko naree jëlee Chine wala Dubaï. wala turki surtout ma bagage turki ak yoy non day xaw a trop legui buñ ko yebee pour andi ko bi buñ ko andee ba fi port bi tam pour ñu génnee ko day seer legui lool nak li waral muy fokk ñu ñaan état bi mu ñu ñoo jàppaleel ci lool xolal ñu ci lool juntu ko saytu waat ko bu baax bu ko défé bagage bu ñu mu baña ser bu ko jaay ka di nga am nañ koy jëndaat mu baña ser seer si ñu mun ko jaay prix bu baax dëkk bi lool nak bu ko défé si dëkk bi lay jarine waaw bu ko defee day jëriñ dëkk bi parce que yow muy jaaykat bi boo jëndee bagage bu rafet bu baax jaay ko jaay bu yomb ki nga xam ne si daa dëkk si dëkk bi day mun a sañse parce que sañse tamit daa bokk si askan te daa bokk si doomu aadama moo tax ñu ngi ñaan nguur gi nga jàppaleel doomu aadama yi jàppaleel commerçant yëpp lépp li nga xam ne si day jóge si port bi du dugg sa biir dëkk nga xool nu nga ko mën a saytoo ba nga xam ne si maanaam dina yomb jëriñ sa waa dëkk. mënuñoo wax sañse ba noppi te duñ ci boole cheveux naturel yi ndaxte cheveux bokk na ci liy taaral sañse loolee waral ñu daal di doxantu ba ci fal cheveux mu daal di ñuy wax cheveux yi nekk à la mode. ñu ubbi place boo xamante ni dañ koy def spécial cheveux def ci salon ci biir loolu daal mooy moo tax ñu ñëw fii ci Grand Yoff ubbi fii bi mooy suñu deuxième boutique euh, ci cheveux. waaw njaayam décembre moom ñu ngi sant bu baax a baax a baax clients yi moom amuñu seen fay parce que wax dëgg yàlla fii ñu nekk nii nii. mën naa ne defaguñ fi deux mois yu mat mais wax dëgg yàlla moom ñi ngi ñëw bu baax ñi ngi ñëw bu baax moom clients ngi ñëw bu baax parce que surtout ay gan lañ fi sax mais tëriwut place ba nga xam ne si ni moom lañ daan njëkk di nekk dañu fay jógee di ñu di ñu woo naan ñu fan nga nekkee léegi fan nga nekkee léegi te aussi tamit clients yi bees yi tamit day ñëw di jënd parce que place bees moo leen di indi ñi ngi ñëw bu baax sa fay ren moom yi gën a xale jigéen gën a tàmm mooy indien yi indien fay moom moom la xale jigéen gën a tàmm waaw yooyu moom moom la xale jigéen gën xam ne mooy romance ak raw xeer yi Vietnam yooyu moom wax dëgg yàlla ak bokkule raw xeer yi ngi koy jaay bu baax parce que xale jigéen moom rek a jël ci événement bi donte nag yeneen yi ñu ngi koy jaay bu baax mais yooyu noonu moom la xale jigéen gën a taamu ci événement bi moo tax it dañ ci andi qualité qualité yoo si ni ak stock boo xamante ni dañ mën a satisfaire suñuy client 31 décembre nag nekk na fet bu ñuy waajal lool fii ci Ndakaaru loolu lay waral xale yu jigéen yu bëri daal di bàbbeeku wutali marché yi ngir mën a taaral bés bile.